côté accident yi laay njëkk ñëw balaa may dem ci yeneen question yu ma laaj boo gisee accident yi euh, lu koy waral en général da nga gis ne nit ki dafa ñàkk yar xamut dawal oto jàpp ne ni mu jàppee tali bi rek moom la jàppee néegam fekk du noonu fekk tali bi am na ay boroom ñu fa nekk am na nit ñu fa nekk ñoo xam ne ay mbindeefu yàlla doo leen gis ñooñu nag boo leen jaayee xamadi këpp sa oto bi moo gën moo tax ngay def ay soog ndax boo xamadee réew boo génnee rek jinne dana nekk sa kilifa waaye jinne boobu noonu yàlla teg ko ci yoon bi ndax yoon boo gis rek surtout tali yi day am rab rab dafay nekk ay temps nga gis te seen teg mbaam mbëkk mbaam ne man gisuma mbaam benn li ma gis jinne la fekk jaatee yu yaa ya amoo yar boo amee yar ci teggin am yar am éducation bu baax boo génnee sa oto rek di nga dem waaye nag ci kaw day fekk nga préparé ci sa bopp man maa ngi am benn ndombo boo xam ne dama koy liggéey doo dee ci accident accident lu mu mën a métti doo dee am na ci loo xam ne danga ko wax pour ñu bi ina anzalnaahu fi laylatul qadri our booy tukki jàng ko juróom benn yoon oto bi lu mu mën a def yow yow da ngay mucc te alquran la ina anzalnaahu fi laylatul qadri ci yoonu tukki yi da nga yéeg ba wàcc dara du la waaye fekkee nag danga nga génn da xam ne yoon bi am na ay rab yoon bi am na ndax tali yi nañ xam ne àll la palaasu jàmbur lañ jëkkati ay nit def fa tali bi kooku nag moom palaasam dafay ñëw te bu amul lu ko neex mooy waral oto yi di këpp waaye ñun nag boo gisee jiyee da ngay ñaan yàlla jiyee googu bañ a am kon ñu ngi ñaan yàlla accident yooyu yàlla na ko yàlla wàññi yàlla na ko yàlla jeexal ci réew mi beneen bi ma laaj mooy comme jafe-jafe yi nga xam ne dafa am ci wàllu place yi xeexante bi liggéeyante bi ñàkk gëm yàlla rek la ndax boo gëmee yàlla rek da ngay jàpp ne kii li mu am yàlla ko ko jox yow yi li nga am yàlla ko jox waaye tamit yow mi nga xam ne tamit bul naagu jugal ci sa bopp préparer sa bopp ndax chaise bi nga toog bul ko caaxaanee ñaan lul ut say gàllaaj def waaye bul lor nit waaye am na ci ñoo xam ne ñoom fii nga nekk daf leen a neexul mu jaral leen ñu dem ci sëriñ fay ko xaalis bu bari pour déjjiti la pour jóge la foofu waaye ñun ku yàlla dimbale ñun ci kattanu yàlla am wóolute te boo ñëwul ci ñun boo ñu wóolul bul ñëw boo ñëwee ci ñun incha allahu rabbi bu ñu jëflanteeg yow danañ la samp ci sees boobu te mbindeef du la mën a tëjërti ndax luñ li ñuy def xam nañ ko ndax alquran la waxu yàlla la danañ la fa samp te danañ la dugal beneen bi mooy comme rab rab am na li ñuy wax rab comme ni jinne amee noonu rab amee bëri na ñoo xam ne rab a leen yàqal sax nga da nga nekk ci place sax rab yàqal la ko jëlee la place bi wala nga xëy xëy rek gis place bi tàkk doo xam ko taal rab moo ko taal rab dafa yàqalaate loolu nag yàlla dimbale nañu ci ku ku kuñ jëflanteeg ci loolu dinañ la dinañ la may lu ko mën a saafara man duñ jaay dañ lay may lu ñu mën a saafaraal waaye fexeel tamit yow it ba seddal suñu xol yàlla seddal sa xol muy jigéen boo xam ne dafa tëlee am jëkkër bari na léegi ci jamono ji ku ñëw wax ak moom waxu sëy rek mu dem rab da koy def liggéey da koy def cat da koy def xam nga sëriñ suñu fi ñu wutee dafa bari sëriñ boo xam ne da ngay ñëw feebar feebaru rab mu lay faj feebaru liggéey ne dañ laa liggéey fekk rab la la war a faj nga gis koo xam ne da ngay am cat moo lay jàpp mu lay faj faju rab ndax tey am na koo xam ne day mën a day day mën a xeex mën a baare waaye am na ci ko xam ne xeex rek lay man gardam dara ci baaxul fu ñu ko ay mën dugg rek day dugg jaar ko te rab dafa am misaal bi mu la ci jox mooy tey su ma ñëwee tey nekk ci koñ bi rab bi fi nekk wala saay-saay bi fi nekk day ñëw seet xool man lan laa man lan laa toogee bu xamee ni kii kàngam la kum euh, buur la day daw day génn koñ boobu ndax day xam ne képp kum laal fii rek ci man lañ koy indi te booba dama koy faj rab nag moom ñun yàlla dimbali nañu ñun may nañu ci tawfeex ndax lan suñ maam Alaaji Abdoulaye Niass fajkatu rab la woon ku xam Kaolack lew na seen xam ko moom danaan faj rab ci kurusam rek dóor nii nga nga wér te loolu ba léegi mu fi loo góor góorgóorlu yàlla may la ko waaye loo góorgóorlu yàlla du la ko may ndax yàlla mën naa maye lépp ba mu sëpp nëbbuwut kon cadre boobu noonu loolu laa ciy am lu ma ciy wax.